maître Clédor moom moo daal di génn maître Clédor la ñuy la ñuy la ñuy fii ci suma assistant parce que sànq mu ngi doon wax ni euh, dafa sonn euh, cas bi mu toll ni permettre ko muy plaider ki nga xam ne rek moom mooy euh, client wum di Ousmane Sonko gis ngeen maître Clédor di avocat ci Ousmane Sonko instant bi moom la waa suma di di évacuer noonu di koy yóbbu gis nañ ni nag bi muy ñëw file ci palais de justice dañu ko gazé peut-être tamit loolu moo ko sonal ndax sànq mu ngi naan seetaan bët yi dafa fulu woon mënul woon gis bu baax est-ce que nekkul loolu rek moom moo ko daal di jàpp ba léegi moom mi la di maître Clédor bokk ci avocat wu Ousmane Sonko eh, gis ngeen mu ngi sol nag yére bu blanc ñu daal di koy tëral ci eh, stéréo bi daal di koy dugal lekk ci biir li nga xam ne rek mooy ambulance suma assistance fi nga xam ne rek fa la Guy Marius nekkoon démb gannaaw si li nga xam ne am na ko ci cité eh, kër góor gi naka ni démb actuellement maître Clédor di kenn ci ay avocat Ousmane Sonko moom la ñu évacué noonu donc comme ni ko honorable député Sanu John waxee woon sànq ni kaawu maître Clédor du ko permettre mu taxaw di del client am dafa mel ni la mu wax rek liy firndeel na ko ndax rek bu sonnul woon lool defe naa ne rek kenn du ko dal di évacué jamono ji nag mu ngi ci ay loxo docteur ba xam cas bi dafa critique ak nu mu mën ci demee rek ñu ngi koy évacué di jéem a yóbbu pour rek defal ko ay soins actuellement nag yëf yaa ngi noonu bu fekkee nag ñi nekk ci biir rek ñoom ba euh, bu dee euh, audience bi mu ngi continuer ba léegi rek nañ ñu balancer les informations foofu ndax bëgg nañ xam exactement jamono ji bu dee rek Ousmane ko daal dinay dellu ci biir wala mu ngi ci biti lu ci mën mënti am rek nañ ñu ko daal di wax ndax ñu mën ko jàllale ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ñuy suivre. non Ciré Clédor Ciré door lii la moom moo ñu évacué noonu. moo nekkoon ak Ousmane si oto bi ñu toj euh, vitre oto bi pompé ko donc il a des problèmes respiratoires on l'a mis dans l'ambulance pour l'évacuer waaw léegi li nekkoon si tribunal bi mooy Ousmane moo commencé woon def benn déclaration après ñu arrêté ko et depuis lors aussi Ousmane est consulté par son médecin parce qu'il a été brutalisé également par les forces de l'ordre donc euh, c'est ça la situation aujourd'hui dañ ko doon consulter son médecin l'a consulté pas faj dañ ko consulter son médecin l'a consulté il a fait venir son médecin personnel qui l'a consulté et qui euh, a été traumatisé donc euh, voilà le, le, le, là pour le moment euh, le président voulait qu'on formule des demandes de renvoi on n'a pas encore formulé les demandes non non on va, voir il a des avocats qui sont constitués il y a qui est venu du Burkina Faso hier qui n'a pas pu voir Ousmane Sonko parce qu'il était séquestré. Il a besoin de rencontrer son client pour lui parler. Depuis hier, il ne peut pas lui parler. Donc voilà la situation aujourd'hui. Il y a également deux autres euh, avocats qui vont venir se consulter, d'un de France, un de l'île Maurice, ou des Réunions, qui vont venir se consulter également. Voilà on en est. Pour le moment, on a suspendu l'audience.